asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd koog wér ci njiitul sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun sëriñ ci ndigalul sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Rokhaya Mbacke ak mboolem njabootu sëriñ Modou Rokhaya gépp sëriñ Cheikh Anta Mbay ñu gën koo miin ci sëriñ Cheikh Thialla Mbay xalifa sëriñ Abdou Khoule Mbay ca Longor Mbay mooy am mbégte dellusiwaat di ñu fàttali ak yëgal bis bi nga xam ne moom la daan ñaanal ay waajuram di sëriñ Modou Abdou Roqee Mbacke ak Serigne Abdou Xuleeg Soxna Càlla Mbay muy màggalu Longoor Mbay màggal googu nag ren jàpp nañ ko gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kori bi Serigne Cheikh Càlla Mbay di ko yëgal Serigne Amsatu Mbacke moom Serigne Sohaybu ak mboolem kuréeli xasida yépp nag di ko yëgalit Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Serigne Cheikhoun Seexuna Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdul Ahad Mbàkke Xabbaan Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Serigne Serif Fanta Madi moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke di ko yëgalit Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Mourtada moom Serigne Touba Khadim Rasoul di ko yëgalit Serigne Mbacke Khalifa Serigne Moustapha May ca Darul di ko yëgal Serigne Sam Mbacke Khalifa Serigne Mbacke Astou Serigne Mamor Mbacke Touba Toul Serigne Cheikh Abdou Mbacke Khalifa Serigne Amdi ak Serigne Cheikh Mbacke. moom sëriñ Abdou Latif Mbacke ak mboolem njabootuk seriñ Touba gépp bàyyiwul kenn di ko yëgal sëriñ Lamp Ndiaye maire bu Cilmaxa sëriñ Moustapha Silla maire bu Ñaaxeen sous-préfet Daouda mbay bu Ñaaxeen commandant Guèye bu Pekes ak mbooleem nataabal yi nga xam ne noo nekk ca tundu Mbakal wépp di ko yëgal fu daaray alquran mën a ne ak daaray xasida mi ngi sàkku ci ñoom lépp lu mën a jàng ci alquran ak xasida ñu jàng ko te yéene yool ba kilifaam yu tedd yooyu nga xam ne ñoom lay fàttaliku sëriñ Cheikh Anta Mbaye nag nee ne mi ngi ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn rawatina mbooleem ko aju ci nag ci kër sëriñ Modou Rokhaya ak noo ci ajo waaye rawatina ku askanoo ci mbàkkal ak noo ci askanoo mi ngi la ko yëgal gaawu lay doon 28 mai incha allah rabbi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kor wi mu ciy sàkku teewaayu ñëpp di ñaan ku fa teew yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo ci barke Seexuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu